mbokk yi dalee nag jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois xam ngeen ni dañ leen di toppal actualité euh, Balla Gaye 2 euh, net nekk fi euh, lutteur avec frappe fi nga xam ni moom mooy Sénégal moom nag ñu ñuy jox information selon laquelle dafa daal di feebar ba ñu daal di koy hospitaliser ci benn centre de santé fii ci diwaanu Ndakaaru information bi nag suñu ay nattango yu waa Dakar ñoom ñoo ko daal di joxe ki nga xam ne moom mooy lutteur bi la ñu daal di koy hospitaliser ñii di laaj ndax dafa am feebar bi nga xam ni moom mooy Covid covid 19 wala beneen euh, feebar euh, loolu kenn amu ci lu leer luñ ci mën a xam daal ki nga xam ne moom mooy lutteur bi rek euh, ñi ngi ko hospitalisé ci benn centre de santé limametti point comme nag dinañ leen toppal loolu ngir xam ki nga xam ne moom mooy ex roi de arènes bile lan moo ko daal di tëral ba ñu koy daal di hospitalisé continuer la nag di topp seen site d'information limametti point comme ngir benn xibaar bañ leen a raw leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen xibaar